Oh. ahlan bikum ndëppulal waxtaan wañu doon xamal ngir ñoŋal wàlluk justice xàtte ci réewum Sénégal jeex na niki démb ba tax yéene kaayu tey ya ca gën a bëri fa ñoo xëy di ñu wax lan moo tukkee résultat dialogue national boobu ñu doon xamal ci wàllu yoon bokk na ca tey mooy yéene kaay mi ñu xamal na ndaje ma ñoom ñëpp fa ñoo bokk juboo ci ne fa ñoo war a wàññi pouvoiru procureur maanaam sañ-sañam naka noona tamit fa ñu fee bëgg a andi li ñuy wax juge des libertés ak détention constitutionnel mu wuutu conseil constitutionnel bi fi nekkoon fa ñoo bëgg tamit ñu andi beneen organisation bu bees jëm ci conseil supérieur de la magistrature fa ñoo bëgg tamit amal révision ci code pénal ak procédure pénale ak procédure civile ak famille si du quotidien ne assise ya verdict baa ngi noonu nag bokk na ca ñoŋal yeesal wàllu xàtte yoon ginnaaw ay bés boo xam ne fa ñoo dajaloo woon ca jam ñaajo daan ko waxtaanee càmbar ko léegi nag lañ dëppoo ca ay poñ ak lañ dëppoo yëpp fañ koy jébbal njiit réew mi président Diomaye Faye su boobaa moom mooy arbitré maanaam jël ay dogal le quotidien yéen a na ko voilà li mu war a arbitré du accord yi de lañ juboo ci ay point déedéet waaye lañ juboowut ci ay point te bokk na ca mooy ndax président de la république fay wéy di continuer di jiite conseil supérieur de la magistrature waaw wala déedéet loolu juboowuñ ca pataas bu tàng jir la de fañ ko nar a teg ci loxo président Diomaye Faye mu xatte ci enquête yi kaay na ma ne faalan di wax bokk na ca lañ juboo mooy fa ñuy xaayee fi mu toll nii buñ joxati kenn titre foncier ci suuf soo xam ne fañ koy bayee l'évidence na ko ma ne faala ci li ñuy wax retour de parquet fañ ko fee bëgg a a kaay bokk na ca lañ juboo mooy fa ñoo bëgg a dakkal xam ne fa ngaa war kenn dootu topp ci wàllu yoon jamono bi nga xëmbee fa ñoo wax na ci wàllu suuf këru jàmbur jël ko jaay ko mel noonu fañ ko war a def crime nga xam ne daanuy métti la ñu tekki ko def bokk na ca ba tey liñ juboo mooy képp kuñ jàppati Sénégal ngay tux yàmbaa dootuñu la daan ay weer wala ay xat yoo xam ne fa nga koy tëdd kaso déedéet waaye fañ lay alamaan xaalis bàyyi la nga dem ñi nga xam ne fañ leen di tëj kaso tamit ñu yàgg fa lool duñ leen xàttee fàtte leen ci kaso yi loolu tamit fañ ko fee bëgg a jëlee te mooy faxe ba yokk attekat yi ak yeneen poñ yu bëri yoo xam ne juboo nañ ca turbine yéen e kaay mel ni ku naa leen hëy bu ñu kenn rey gis ngeen dialogue bi ñu doon amal ci wàllu yoon dara lu bees andiwuñ ko fi fa tàngal ceeb rek ndax fii yàgg nañ fee amal ay waxtaan génnee poñ yi ñu génne nii génne woon nañ ko fi kon fii dara beesut fi te mbootaayu attekat yi fa mel ni bëgg-bëgg président rek la doxal info yéen a kaay mel ni ku naan tribune yéen kaay xanaa yow démb nekk leen woon ca ndaje ma de ñii point yañ fa wax yu ama am solo la yow ngay wax lan la mu wax nag enquête yéen a kaay ca vox populi fa yokk moom jëwriñ ji Ousmane Diagne ne ñun fa ñoo war coppite yeesal wàllu yoon ci Sénégal bu baax nag te gis ngeen attekat yi su fekkee fañ leen di sant ñuy attee tëjal ma kii kaso bàyyil ma kii bu laal kii maanaam fañ leen di influence daal su boobaa xatte ci boppam dootul wérati loolu nag lañ bëgg mu jeex fi ñëpp yem ci wàllu yoon ku yoon yoon dal sa kaw ak koo mën a doon nag kumba xam nday kumba xamul sénégalais dem ba wóolu attekat yi xam ne ku tooñ fañ lay teg daan ku am dëgg ñu jox la dëgg ba kuñ tooñ sax fa nga yàkkamtee dem ci yoon xam ne yoon fay def liggéeyam lii nag lañ bëgg ngir loolu am nag njuréef yi tukkee ci assises yi fañ ko war a jëfee leer laneen lu leer ba yegg ca naan ja mooy njiitu këru taskatu xibaar yi fi mu nii fa jaaxle dañu ngi ci pression bu métti wal fajir yéen a kaay ne ah fisc bu war a fay xaalis impôt ak inspection

moom def patron de yi moo gën a garaaw moom baal naa leen seen bor bi te binduñ ko fenn la mu bindut waaye fa ko wax moom Aïda Mbodj mooy képp koo xam ne fañ laa lebaloon ci xaalisu deer bi fa koy goqi maanaam fa ngay fay ak koo mën a doon nag pour muy leer ma ko waxee ci source ay yéene kaay fa ñoo xamal ñàkkante bras de bu am diggante fisc bi ak banque de Dakar ba tey yéene bi nañu xaabi mooy waajoo nekk ci internet bi trouvé lu tolloo 450 milliards ngir fàtt ci budget 840 milliards yi indépendant yéen a kaay loolu baax la di loolu fay wane ne président Diomaye Faye ak nguuram gu bees gii ñi wax ay investisseur fañ leen a wóolu am nañ ci ñoom confiance le réveil yéen a kaay moom fa xamal ne kërug liggéeykaay gi ñuy wax ICS ginnaaw buñ dakkalee seeni liggéey lu tolloog juróomi junney emploi ñu fa doon liggéeye direct fa ñoo nar a taxawaalu te loolu baaxut li baax nag ci njàng meeg njàngale mi jëwriñ ji ñu dénk wàllu yi Moustapha Guirassy moo ko def ah, yow seetal fay xamal tukkib nemmeeku dem visiter yi ay école xool xool la fa xew ba pare jël ay matuwaay ci joyante njàng mi la regard yéen kaay moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom l'observateur mooy mbir mu yéeme bu am ca diiwaanu mbuur a yow seetal fa xam benn soxna soo xam ne daal fa hubbi ab salon de massage ca mbuur waaye la fay ca salon ba fa garaaw ba jéggi dayo clients yi fa ñuy ñëw ñu leen di bësal seen yaram wekko noddanteeg lu ma la mënta wax waaye fa muy mujj moo yëfu saay-saay ak xale yu jigéen ñu jaxasoo ak ñoom ba ci am na ab xale bu jigéen ko agressé yor yor yéen kaay ne leneen lu garaaw lu amee ca tiwaaw woon benn waay daal fañ koo fekk ñu lakk ko ba mu xëm faatu ñàkk bakkanam allah yëf yaa nga amee ca tool ya ca xàll ba turbine yéen e kaay ne waa jooju nag ñu lakk noonu ba mu xëm kenn xamagut nu mu tudd fu mu dëkk fa ñoo njort nag ne fañ koo ray ba pare taxal ko ma nga amee ca dëkk bu ñuy wax mbóojéen fañ ko lakk ba mu xëm laa wax yax yam dese woon ak néew moom lañ jël suul ko waaye yaram wuñ suul moom xamul fa takk day na hubbi nañ ab enquête laas yéen e kaay moom it fa ñoo xamal mbir mu yéeme mu am ca Tuubaa yaaw benn waay daal fa bojj paaka jam waay ba mu faatu ñàkk bakk bakkanam dee wet waa ja ñu wax ne moo ko rey nag bañ ko jàppee attee fañ koo tëj benn weeru kaso bu muy tëdd ba tax laa si ne kaay ne loolu nag mooy injustice dëgg a yow yow bakkan ni mu réyee nga faat ko tëjuñ la lenn lu may benn weeru kaso fa tuuti ba jéggi dayoo